ni nga xamante ne yónnee nañu ma ay ndaw muy délégation yu takku te ñaari fan yi ñu génn muy ñoom kilifa diine yi lu généraux yi muy kilifa aada yi muy waa jàngu bi église muy classe politique bi ba ci opposition bi ñenn si ñoom société civile syndicat yi ak patronat ñoom ñëpp si diiru ñaari fan yi déglu naa leen dégg naa leen itam message yi nga xam ne ñoom lañu ñu ma yónnee rawatina ci kilifa diine yi message la yoo xam ne mënuma ci bañ a wuyu ndax képp koy wut jàmm ci réew mi jàpp naa ne ki jiite réew mi ngay gën a wutal jàmm te lépp lu lu laal askanu senegal ak ku mënti laal si lu metti ci man mi lay gën a metti moo tax li ñu ma ñaan di doxal jàmm fexe ba mbir yi ñu dox si ngir mu wàcc jàmm am ndax jàmm loo ko jëndee jar na ko lii rek moo waral ñun ñu doxalee nii man mi nga xam ne nag man la yàlla jiit def ma jiite réew mi tey jii lépp luy sama kàttan ci nguur gi danaa ko def ngir jàmm jooju ñu ñaan dellu si si réew mi dal dellu si si réew mi ngir Sénégal lañu ko xamee woon démb ak barke démb muy réew moo xam ne réewu jàmm la réewu dal la réewu waxtaan la réewu démocratie la waaye réew la moo xam ne itam ah nit ñi même bu ñu bokkulay xalaat daañu weccoo ay xalaat léeg sax ñu wax ba dënn yi tàng waaye nag li nga xam ne moom lañu bokk muy réew mi ak démocratie bi ak institution yi ah loolu waruñ ko yàq te kenn warul dugg si lu koy yàq maa ngi santaat di gërëmaat kilifa yi suñu réew nag yàlla moo ñu baaxee loolu ba tax na fu mbir yi jaxasoo bi xel yépp tiit kilifa yooyu daañu jóg waxtaan ak kenn ku ne waxtaan ak ñu yor nguur gi waxtaan ak ñu yor opposition waxtaan ak ñi nga xam ne xëy na ñoo yëkkati mbir mi ngir ñu xool ci yan anam la ñuy lijjantee ba jàmm mën a dox leneen li itam xam naa ni am na ci réew mi ay jafe-jafe ci wàllu ko